Serigne Moussa Ndoye Serigne Moussa Ndoye mi ngi gane àdduna ci atum 1845 ci dëkk bu ñuy wax xay mbayaar xay mbayaar nag mu ngi ci wetu dëkk bi di njaay dànq ci région de Diourbel ci dëkk boobu nag di xay mbayaar fa la nag jëmm ji di Serigne Moussa Ndoye feeñe jamono ci atum 1845 di doomu Serigne Njoogu Ndoye ak ku ñuy wax soxna Fatma Yaasin Jeng ma wax leen nag lan moo tax Serigne Moussa Ndoye feeñe jamono ci dëkk boobu di xay mbayaar ndax dafa am bi dëkk boobu ay waajuram nekkoon di jokkul tàbbi lii yi nag ñëwoon fa guddi kero daal képp koo xam ni nii fanaan nga fa ab jaam ngay nekk ci guddi googu nag la waajuru sëriñ Moussa Ndoye bàyyi ko ci dëkk boobu di jokkul tàbbi ñëw nag ci xaritam bu ñuy wax monsieur Jexeer ci xay mbayaar ngir bañ a doon ab jaam booba nag mi ngi tombeeg waajuru sëriñ Moussa Ndoye mii di soxna Fatma Yaasin Jeng tollub diggante ginnaaw buñ bàyyi ko ci dëkk boobu nag ñëw nag ci dëkk bii di xay mbayaar diggante bañ fa def nag ci la sëriñ Moussa Ndoye feeña jamono sëriñ Njoogu Ndoye mii waajuram tudde ko xaritam boobu mu fekk woon di monsieur Jexeer kon Bakar la tudd sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim nag moo soppi tur wi tudde ko Musaa Kalimullah ginnaaw bu mu ko fekkee Mbàkke Kajoor jaayanteeg moom kon lii moo indi sëriñ Musaa ji waaye Musaa Jaxeer nekkoon xaritu waajuram nekkoon itam kilifa ci dëkk boobu di Xay Mbayaar lañ ko tudde sëriñ Musaa Ndooy nag amul kenn kum bokkal soxna Faatma Yaasin Jeng mi kon benn doom la ci waajuram laataa muy dal nag lii di alxuraanul karim bàyyi ko nañ ci dëkk boobu di Xay Mbayaar ñëwaat nag ci jokkul tàbbi gi ay waajuram cosaanoo bi mu matee dal alxuraanul karim moom sëriñ Musaa Guy ku ñuy wax sëriñ ma mii ja sëy moo ko dalal alxuraanul karim ci dëkk boobu di jokkul tàbbi ginnaaw bi nag lañ ko yóbbu ci dëkk bi ñu tudde ndillax jox ko fa ku ñuy wax sëriñ moor faal ndillax sëriñ moor faal ndillax moom nag ki la nekk nag ba mokkal alxuraanul karim ginnaaw ndillax nag yóbbu nañ ko ci dëkk bu tudd Mérina Kër Ousmane ci ku ñuy wax sëriñ Ousmane Kan mu wéel fa am njàngam ci sëriñ Ousmane Kan moom sax la tàmbulee jànge lii di xam-xam ginnaaw bi nag la fa bàyyikoo dem nag ci dëkk bii di njaay dànq ci mu xàddamu maam Cheikh El Hadji bu fa nekkoon bu ñuy wax sëriñ Ibrahima Cuun ci ibrahima cuun moomu nag la bàyyi ko ñëwaat nag ci jokkul taab bi ginnaaw bu mu jàngee ba noppi nag la wéy nag des nag ci dëkk boobu di jokkul taab bi ba ni mu muri taxawee mu dem jaayanteek ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddim ci dëkk boobu di mbàkke kajoor kon nag ma wax leen sëriñ musaa ndooy lan moo ko indi ci attuf ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddim ginnaaw bu mu jógee ci dëkk boobu ay waajuram cosaanoo di jokkul taab bi ngir dégg nag ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddim ndax yoon wi kat bu njëkk ñenn ñi laay laaji lañ ko daa wax am na ñu ko daa wax bàmba ji ngir seexul xaddim tuddoon ahmadu bamba loola itam taxoon na ñenn ñi daanañ wax yoonu murit laay-laay ji ñenn ñi daa ko wax bamba ji ginnaaw bu mu déggee na am na kenn ku nit ñiy seeti mu nekk góor yàlla moom sëriñ Moussa Ndoye nag keroog ba mu fay dem ci sëriñ moor kumba kan la jaar ginnaaw bu mu déggee na sëriñ moor kumba kan demoon na seeti ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ba noppi keroog nag ba fa sëriñ Moussa Ndoye di dem ci sëriñ moor kumba kan la jaar di ko wax ne dégg naa ne demoon nga ci ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim waaye kooku muy dégg de képp koo xam ne nii jóge jaar am lum la bàyyeel moo tax nag man mi ma bëgg a yem rek ci yow ngir nekk nag sab taalibe di la liggéeyal kàddu yooyu sëriñ Moussa waxoon na kii di sëriñ Mor Kumba Kan diisoon na lool nag ci sëriñ Mor Kumba Kan waaye nag sëriñ Mor Kumba Kan def na ay pexe ba sëriñ Moussa Ndoye egg nag ci ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xaddiim ginnaaw ba fa sëriñ Moussa amee ay fan ci moom ab lettre la bindal sëriñ Moussa Ndoye boole kook ay addiya di ko wax ne mu yital ko ko ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xaddiim ginnaaw bu xadim sëriñ tubaa seexul xadim nag laajoon na sëriñ musaa ndooy ni mu tudd sëriñ musaa ndooy di ko wax ne musee ndooy laa tudd ndax kat waxoon naa leen sëriñ musaa ndooy nag nu mu feeñe jamono ci dëkk boobu nag di njaay dànq ginnaaw bu ko sëriñ tubaa seexul xadim ne bindal musee ndooy mu bind musee ndooy sëriñ tubaa seexul xadim moo far loola bind musaa kalimullaa ne ko nag bis na tey nañ lay wooye wiiw tur ginnaaw bi nag sëriñ tubaa seexul xadim bindaatoon na lettre joxoon ko sëriñ musaa ndooy moom ngir mu yitaar ko nag kii di sëriñ moor kumba kan doon jàngaatee lettre ba nag fobaan na ay addiya boole ko sëriñ Moussa nag ne ko nag mu dem wuy ji ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim ci Mbàkke Kajoor ginnaaw bu sëriñ Moussa Ndoye ñëwee nag ci Mbàkke Kajoor jaayante ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru la ko boolee loon ngir wax leen ñu nekk ay wóllëre ba tax na soo demee ci kaw guy sëriñ musaandooy daa fa fekk mbindum maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru ak yeneen ak yeneen yu maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru moomoon des nag mbàkke kajoor googu ndax bi muy ñëw ci yoon wi fanweeri at ak juróom-ñeent nag la amoon du woon tuut tànk ginnaaw bi nag sëriñ tubaa seexul xaddim bàyyi waatoon na ko mu delluwaat nag ci dëkk boobu mu cosaanoo di jokkul tàbbi sëriñ tubaa seexul xaddim bàyyi ko mbàkke kajoor ñëw mbàkke bawal sanc daaru salaam tuubaa ginnaaw tuubaa googu nag kii di sëriñ musaa ndooy sëriñ tubaa seexul xaddim sëriñ axmadu ndumbe mbàkke la ko booleeloon ngir mu tarbiya ko ànd naag sëriñ mu ndumbe mbàkke ci diirum ñetti at ginnaaw bi nag la ko ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim nag mu delluwaat nag ci dëkk boobu di jokkul tàbbi bi mu jotee ngërëm ba jóge ci ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim delsiwaat nag ci dëkk boobu di jokkul tàbbi ci guy gu ñuy wax ngoxut soriwul dara jokkul tàbbi ba nëg ni sax guy gaa fa foofu nag la defaroon am néegam mbokkam yooyu mu bàyyi woon jokkul tàbbi nag dem jaayante ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim taal néeg ba sëriñ Musaa tàmbalee am ay jafe nag ci dëkk boobu di jokkul tàbbi ginnaaw bi nag bàyyi ko waat na ci dëkk boobu di jokkul tàbbi jaar nag ci dëkk bii di xay mbayaar ci foofu nga xam ne nii fi la turandoom cosaanoo ñëwaat nag seetiwaat ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim seexul xaddim di ko wax ne foofu di jokkul taab bi daal mooy dëkkuwaay ba mu delsiwaat nag ci dëkk boobu di jokkul taab bi ànduwaat tuuti nag ci guy googu di nguxu am na wenn xur wu nekkoon foofu soriwul dara guy gi mu dëkk fa sax am na ab teen bu fa nekk bu ñuy wax teenu seex musaa mu dëkkaataat foofu mbokkam yooyu itam ñëwaataal ko guñ koy xeex rek ngir jaayante gum jaayante ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim sëriñ musaa ndoy bàyyi ko waat fa nag ñëwaat ci ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim di ko waxaat jafe-jafe yi ñuy dund ci jokkul tàbbi ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim di ko wax ne dellu rek foofu mooy dëkkuwaay ba te yoon woowu nag ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim defal na koy ay ñaan jox ko suuf di ko wax ne soo demee danañ la tudd ba faaw te buñ la tuddul ba faaw itam ñoom danañ la soxla kon njariñ moom foo jaar def leen ko sëriñ Moussa Ndoye jëloon na suuf soosu boo demee bay jub dëkk bii di jokkul tàbbi am na daqaar gu fa nekk gu ñuy wax daqaaruk nete ci daqaar googu nag la sëriñ Moussa Ndoye dëkkaat dëkkam bu mujj ndax kat seexul kaab bi mooy dëkkuwaay ba mu nekk foofu nag ak ay jafe-jafeem ndax kat ay mbokkam nawloo wuñ ko ndax ku ñàkk fayda lañu ko teg lan moo tax mu bàyyi cosaan bi ñu nekkee dem di toppi ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim su bëggee lum jëfandikoo nag day dem yalwaani ko ngir dooga mën a jëfandiku ndax kat dëkk boobu di jokkul taab bi amul kenn nag ku ko fa nawloo ndax jëf ji sëriñ Musaa def mooy jaayanteek ku baax ki sëriñ tubaa xaddiim mu wéy nag ba ni sëriñ Madiabel Thiaw kon sëriñ Madiabel Thiaw la njëkk a am ci taalibe bu jaayanteeg moom mu tàmbalee gis nag li ko ku baax ki sëriñ Tuubaa seexul xaddim waxoon ndax seexul xaddim kat neewoon na ko soo delloo danañ la tudd ba faw wala ñu noppi laa tudd te buñ la tuddul nag danañ am soxla ci yaw ndax da nga leen jëriñ maam Madiabel Thiaw moom sax am na sëtti sëriñ Moussa Ndoye yoo xam ni moom moo meññi seen waajur sëriñ Moussa Ndoye nag tàmbalee yaatu nag ca dëkk ba waaye nag téewul ba nëga ni nag jafe-jafe ya ma nga fa ndax Moussa Ndoye demul julli ji ak ñoom tabaski jotitim sëriñ Moussa Ndoye demul julli ji ak ñoom ba ca déwén sa nakata nag waa dëkk ba meraloon nañ ko denc ca déwén sa nag ba korite jotee sëriñ Moussa Ndoye nag demul julli ji ak ñoom biñ koree ba noppi nag la waa dëkk ba nag dajaloo ne nag sëriñ Moussa Ndoye mi nag mi ngi leen di waaj a jaaxal ndax kat ñoom bu doonee ci dëkk bi ay nijaayam ak ñu ko jàngal alxuraanul karim dong nag ñoo fi nekk kon nag lan moo tax nag mu dem ci bàmba ji dikk bëgg leen a xeeb ba tax sax léegi ñi fi nekk sëriñ Moussa Ndoye loolu ñu def nag délégation dem seeti Serigne Moussa Ndoye ci foofu mu nekk ngir fas yéene koo laaj nag lan moo tax mu doxalee noonu ndax kat ci lislaam itim mayee na képp koo xam ne nii wax na ne ab jullit la te nanguwut a jullee ndoog yi nanguwut a wooroo ndoog jullit lépp lu jullit yiy def mu boykote ko lislaam dafa wax ne nañ ko rey waa dëkk ba nag boobu luwaa nag lañ bëggoon a tëral itam ci Serigne Moussa Ndoye waaye ginnaaw bu ñëwee nag di ko laaj lan moo tax mu doxalee noonu Serigne Moussa Ndoye nag doon na sàkku nag ci waa dëkk ba ñu dem xool nag ñu leen doy ñu ñëw laaj laaj ko ay nag munta wax ak mbooloo mépp ci la waa dëkk ba nag tànn nag ñetti mag ñi nga xam ne nii nag ñoom lañ gënoon a nawloo ca dëkk ba muy ku ñuy wax sëriñ Babacar Thiaw sëriñ Mademba Dayo faal ak ki nekkoon imaam dëkk ba nag sëriñ Abdoulaye Sëy ñoom ñett ñooñu nag lañ tànn ngir ñu wax ak sëriñ Moussa Ndoye ci lan moo tax muy doxale noonu te képp kuy doxale noonu nag lislaam dalaa war a faagaagal biñ ñëwee nag sëriñ Abdoulaye Sëy nag lañ joxoon seen kàddu sëriñ Abdoulaye Sëy itam laaj na sëriñ Moussa lan moo tax mu doxale noonu mu doxale ndax koriteeg daaw julli ak ñoom ki daaw itam julli si wut ak ñoom koriteeg ren gi itam si wut ñoom te bu xam-xam moo ko ëppale ndax moom moo nekk imaamu dëkk ba kon nag loolu moom nan la ko mën a layale moom sëriñ Moussa Ndoye na leen tontu nag waaw wala déet sëriñ Moussa Ndoye keroog mi ngi tontu sëriñ Abdoulaye Sey moom di ko wax ne yow yaa ma jàngal alxuraanul karim waaye nag alxuraanul karim li ko dalee bàqara ba naasi dama cee gisul nag imaam boo xam ne nii bu jógee këram sabar yi dañ koy dar ak ndënd yi ak bufta yi ñu koy jiin nag ba mu egg ca jullikaay ba bu jullee ba sëlmal itim sabar yeeg ndënd yi ak bufta yi itim ko ba mu eggaat aqraba naasi loolu moo tax itim ma sib seen julli gi sëriñ Abdoulaye Seye nag wax jooju sëriñ Moussa Ndoye waxoon nag dugg na ci xolam ba taxoon te mu sàkkuwaat ci sëriñ Moussa Ndoye mu woo mbooloo mi mu dajalewaat waa dëkk bi ngir di waat ci sëriñ Moussa Ndoye nag wax jooju mu ko wax mu waxaat ko waa dëkk bépp dégg ko sëriñ Moussa Ndoye itam waxaatoon na wax jooju waa dëkk bépp dégg ko sëriñ Abdoulaye Seye moomu nag nekkoon imaamu dëkk boobu di jokk taab bi ca booba nag ca la waxee ne moom daal amatul lenn lu muy def ndax sëriñ Moussa Ndoye mi sëriñ Moussa Ndoye loola itam tax na lu ëpp ci njabootu sëriñ Abdoulaye sëy gii sëy lañ santoon waaye kàddu yooyee mu séqoon ak sëriñ Moussa Ndoye tax na itam lenn ci njaboot gi am na ñuñ ciy santalee Ndoye waaye ca cosaan sëy lañ santoon ci la nag sëriñ Moussa Ndoye tàmbalee amee jàmm nag ca dëkk ba waa dëkk ba nag tàmbale koo boolewaat ci seen bopp kon nag la ko seexul xaddim waxoon dikk na soo demee nag danañ la tudd ba faw wala ñu nopp tudd ba faw te buñ la tuddul ba faw itam danañ la soxla ñii nag la sëriñ Moussa Ndoye def ba am jàmm ci dëkk boobu di jokk yokkul tab bi sëñ Abdoulaye Seye moom nag mujj na nekk itam taalibeb sëriñ Moussa Ndoye ba tax na itam kii di sëriñ Moussa Ndoye itam tudde na ko doom bari na sëriñ Abdoulaye Ndoye yu nekk sëti sëriñ Moussa Ndoye Abdoulaye Seye moomu lañ leen tudde wala kañ leen tudde Abdoulaye Seye moomu lañ ko tudde bari na itam ñu sant Ndoye ci taalibey sëriñ Moussa Ndoye ca cosaan sant ñu Ndoye Seye lañ sant te lii mooy lu ko waral mu wéy nag nekk nag ci dëkk boobu di jokkul tab bi di liggéey ba ni gi ci atum 1895 sëriñ Moussa Ndoye mi ngi ci dëkk boobu di jokkul tab bi foofu itam la toog xaar fi ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xaddim ba ni mu ñibbisee ci atum bi sëriñ Touba Seexul Xaddim di dem ci géej bindoon na lettre mag ñi wala bindoon na ay lettre mag ñi di leen xamal ne tukki bii muy waaj a dem tooñul kenn te itam yoon wii muy dem itam ñeme na ci mi ngi xamal mag ñi ci biir lettre bi di leen wax ne nag santaane bi suñ boroom indi dong nag ci la nekkoon wasallam moo nekk ab yónnentam yónent boobu itam dig ngeen gi mbindéef salallaahu taala alayhi wa moo nekk itam aw layam ci noon yi moo nekk itam ab soppeem moo nekk itam ku koy wéttali ci yoon wi yónent boobu itam ba tey moo nekk itam wasilaam bu koy jàllale ci suñ boroom buur bi tabaraka wa taala sëriñ tubaa seexul xadim mi ngi wax ci lettre bi ba tey mu ne alxuraanul karim mooy téere bi koy jubbanti lislaam ji nag mooy yoon wi koy teg tegtal ngir mu dem ci suñ boroom mu ne lii lépp maa ngi wa taala rek mbégteel leen lettre bi sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim bindoon mag ñi bi muy dem ci géej gi ci atum 1895 ngir di dénk mag ñi yoonub tukki bi ak lan moo tax muy tukki ngir mag ñi xam ne moom ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim tooñul kenn mën naa am kay dogalub suñ boroom moo ñëw dal ci kawam tubaab bi war ko génne nag lii di réew mi waaye nag bis bu demee itam nekkul na kuy saali ci biir tubaab yi wax jooju nag la doon dénk mag ñi ginnaaw lettre bi nag ak xasida nag la ko boolee boobu nag waroon na mbooleem mag ndax ci biir lettre bi kat sëriñ tubaa seexul xaddim mi ngi ciy wax ne képp koo xam ne nii jot na ci na ko jot li sa moroom ndax mu mën a tasaaroo ci mbooleem mag ñi lettre bi itam nag ni mu tasaaroo ci biir mag ñi ni la ci sëriñ Moussa Ndoye jotee ñu teewlu ko ila kulli man yaalamu bi amri kaatibi haadihi alxuruf salaamun laa'iqun bihi amma baad fa inna kaatiba haadihi alxuruf lam yazlim illaha tabaraka wa taala walam yazlim rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam walam yuwajjih ila ahadin bi awnillahi tabaraka wa taala wa bi jaahi rasulihi sallallahu alayhi wa sallam baatilan mundu aqala fal yawma yuridu an yunabbiha kullu man lam ya'lam bi amrihi tanbihan la yakunu ba'dahu shakkun allahu tabaraka wa taala rabbi wa sayyidina muhammadin muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyyi wa rasuli wa wasilati ila allahi tabaraka wa taala wal qur'anul karim ki dalili mabda'i wa hudaya wal islaamu diini wal kaabatu qiblati wallahu ala ma naqulu wakil allahuma salli ala sayyidina muhammadin mawlana wa qurrati ayunina wa junnatina wa jannatina wa wasilatina ila rabbina loolu mooy lettre bi sëriñ tubaa seexul xaddim bindoon mag ñi waaye ci biir lettre ba nag ak xasida la àndaloon ca biir xasida ga nag ba nëga ni ku baax ki sëriñ baa seexul xaddim mi ngi leeral mag ñi rek yoon wi naka la fas yéenee mel ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim mi ngi wax ci biir xasida gi moom moom daal ay mbiram ci suñ boroom buur bi tabaaraka wa taxaala rek la ko jëmale waaye tim nag suñ boroom buur bi tabaaraka wa taxaala dana ko nooyalal yoon wi ba benn loraange nag du jóge mukk nag ci tubaab bi jëm si ci moom lii di xolu mbindeef yi tim suñ boroom nag nooyalal na ma ko lii tim nag di loraange du jóge mukk fenn ak fu man di doon jëm si ci man sama xasida yi may bind itim nag heure bu ma ko bindee aras day jaayu malaaka yi dañuy wéy nag di sàbbal suñu boroom bu baax kis riñ tubaa seexul xadim mi ngi wax nag ci xasida gi ba tey na am mbindam natt na ko bi maanaam daal peese na ko ba diggante aras ak kursi yu xasida yi dafay nekk nag di jaabante te lépp nag lu nekk ay caaxaan fu ko sama xasida yi fekk far ko ci tënk daal lii mooy xasida gi Sëriñ tubaa Seexul Xadiim boole woon ak lettre bi ci atum 1895 bi muy dem ci géej gi te lettre bi nag ku baax ki Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim waxoon na moo xasida gi na wër nag mboolem mag ñi ndax nag ñu mën cee sukkandiku ci diirub nag li muy dem ci tukki bi ba delsi xasida gi nag salaatu ala nabi la ko ku baax ki Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim tëje ñu gi madd yadi li gay rabbi binnabi man qaadali fi safari wa watani muhammadun wasilati wa junnati an al aadi wal aza wa jannati darajati kawni abdullahi qadima abdihi ibni abdullahi ila al ilahi allahu wa rasulu maa sihaabihi amaltu suuli man na minni bi maa yasuu aw yadur walam yatut fa zaaka zu kaddin wadur ida katabtu ihtaza arsha almaliki wahtaza bi tasbiixi kulla maliki zuntu makaatiba taduuru bayna al arshi wal kursiyu tamxul mayna xasida googu nag ak lettre boobu nag la fi sëriñ tubaa seexul xadim bàyyee loon mag ñi dem ci géej gi sëriñ Moussa Ndoye nag wéy nag des nag ci dëkk boobu mu nekkoon di bi ndax kat foofu la ko ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim dël ba ni ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim ñibbisee ci géej gi ci atum 1902 def na nag comme ni ko mag ñëpp defee ñëw ziyaare si ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim ginnaaw bi nag sëriñ tubaa seexul xadim am na fi takk-takk ak mbaaxaan tubaab bi sëriñ tubaa seexul xaddim ci réew mi di gànnaar gànnaar googu sëriñ musaa ndooy dem na fa ñaari yoon te yoon wu njëkk woon ak ñii la fa àndaloon ku ñuy wax sëriñ ma jale faal sëriñ moor faa ngom bokkoon ci jàmbaar yi sëriñ tubaa seexul xaddim defar ak ku ñuy wax sëriñ gumma ci jàmbaar yi sëriñ tubaa seexul xaddim defar ci la bokk sëriñ góor jaañ sëriñ baabukar fay ak kii di sëriñ ma jabel caw ak ñeneen ak ñeneen ñum àndaloon waaye ñii moom mën nañ leen a ràññee ca yoon wa sëriñ musaa ndooy itam delluwaat na gànnaar ngir seetiwaat ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim kon dem na ñaari yoon gànnaar ngir seeti ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim waaye ca yoon wu njëkk wa ñii la àndaloon ca yoon wa ca yoon woowa itam am na fa lu tollu juróom benn weer jàpp juróom ñaari weer ngir nekk ak ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ginnaaw gànnaar ca yéen jolof ci atu 1907 ca yéen jolof googu itam daana fa dem ay yoonu yoon di ziyaare ji ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ginnaaw ca yéen jolof njaareem njaareem googu itam kasaalika daana fa dem ay yooni yoon di seeti ku baax rëy bi mu jaayante ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim yit na ko nag ay addiye yu takkoo takkoo takku ndax kat dafa foogoon ne lépp lum soxla ci suñu boroom ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim rek moo ko ko mën a jox waajuram wu jigéen ko amoon barke la wala ko amoon daal lii di ab am am la ndax waajuram wu jigéen kat yoroon na luñ tudde ay gétti nag ndax mag ñi daanañ wax ak tigga tigga nag ci ñu ko xamul bu baax a baax mooy génn gétt goo xam ne ni daañ ci yeew lu tolloo ñett nag jàpp ñeenti nag waajuram wu jigéen nag amoon na ci lu tolloo téeméer daanaka daal téeméer yi nag la waajuram wu jigéen am ba tey sëriñ Moussa Ndoye jébbaloon na ko baax ki sëriñ Touba Seexul Xaddim yeneen i addiya addiya yooyu ñu mënoon caa ràññe ñetti téeméeri dërëmi ngurdu ñetti téeméeri basangi romb jaan ñetti téeméeri bagaani cerey lay ñetti téeméeri xàndi diwu riic ak nag li ñu tudde aw fasu naaru góor ñeent yooyu nag la waxoon ne nañ ko jébbal ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xaddim fasu naaru góor wi nag nañ ko jébbal kii du Cheikh Mamadul Bachir Mbàkke ndax moo nekk ab cëram ci Xaadim ci liggéeyub sëriñ Moussa Ndoye ba tax na saa su ne ak njabootam bokk na ci li ñuy waxtaane ci seeni jataay kon addiya yooyu addiya yu am doole la ci njabootuk sëriñ Moussa Ndoye jébbaloon na ko ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xaddiim ci njaareem sëriñ Moussa Ndoye nag yor na ay ndono yu jóge ci ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xaddiim yor na kaamil boo xam ne nii ku baax ki sëriñ tubaa Seexul Xaddiim yoroon na ko ci diirum ñetti at kaamil ba itam nag ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xaddiim bind ko waaye taalibeeb sëriñ Moussa Ndoye muy taalibeem bu ñuy wax indi woon ko joxoon ko sëriñ Moussa Ndoye addiya sëriñ Moussa Ndoye fobaatoon kaamil ba yit ko ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim addiya kaamil boobu nag ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim na ko ci diirum ñetti at bi nag la ko jébbalaat sëriñ Moussa Ndoye kaamil bi ku dem ci kaw guy sëriñ Moussa Ndoye teg ca bët ndax man ni teg naa ci sama bët ba tey ci ndono lu jóge ci ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim nekk ci loxoy sëriñ Moussa Ndoye muy luñ tudde ab àndaar ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim daana ci natt muurum koor àndaar jooju itam mi ngi ci loxoy njabootu sëriñ Moussa Ndoye andaar ji sax jamono ji dañ ko ëw ngir bañ mu tasaaroo andaar jooju sax ku baax ki sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacke yónni woon na ko mataar Jaxate ngir mu indil ko ko ngir moom itam mu natt ci muurum koor sëriñ Touba Cheikh Abdou Lahad itam natt na ci muurum koor ngir barkeelu ca noonee ko seen waajur wa defee woon andaar jooju mi ngi ci loxoy njabootu sëriñ Moussa Ndoye man gis naa ko ba tey itam ndono lu jóge ci sëriñ Touba Cheikhul Khadim ñëw ci loxoy sëriñ Moussa fa otub daa boobu nag wax nañ ne ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim bi muy dem ci le 5 septembre ci atum 1895 ci bureau gouverneur bi bi muy signé ci potu daa jooju nag la sëppoon xalimaam ba signé potu daa boobu nag mu ngi ci loxoy njabootuk sëriñ Moussa Ndoye kii di sëriñ Touba Seex Saaliwu Mbàkke laajoon na njaboot ji potu daaja ginnaaw ba ko njaboot ji indilee potu daaja ci kër gi nekk nag ci jannatul maxwaa booba la sëriñ Touba Seex Saaliwu Mbàkke nekkoon ginnaaw buñ ko ko indilee defoon na ca ndox yëngal naan daaja potu daa naa ci sama bët man ca njaboot ga ci xasiday ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim yu maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru bindaati tim ma nga fa teg naa ci sama bët sëriñ buubu mbay njannaate am mbindamitim ma nga ca loxoy njabootuk sëriñ musaa mbub mu sëriñ tubaa seex saaliwu mbàkke daa solitim mi ngi ci loxoy njabootuk sëriñ musaa ndooy mbub mu cheikh abdulaxat mbàkke daa solitim mi ngi ci loxoy njabootuk sëriñ musaa ndooy lii lépp ma leen wax nag man teg naa ci sama bët wala ma laal ko loolu itam taxoon na kii di sëriñ tubaa seex Saliou Mbàkke ku fonkoon njabootuk sëriñ Moussa Ndoye la ba tax na kii di sëriñ Daawuda Ndoye nekkoon doomu sëriñ Moussa Ndoye sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbàkke joxoon na ko suuf su yaatoo yaatu ci jannatul maxwaa ci diggante kër sëriñ Saliou Mbàkke ak lii di marché jannatul maxwaa gi ba tax na lenn itam ci njabootuk sëriñ Moussa Ndoye gi foofu la ñu dëkkee njabootuk sëriñ Moussa Ndoye itam nag am nañ kër itam ci péncum daaru minam mi muy diggante kër sëriñ Basiiru ak kër sëriñ Muudu Abdoulaye bu sëriñ Basiiru kër gu mag gi wala kër sëriñ Moussa Ndoye mi ngi foofu lenn ci njabootuk sëriñ sëriñ Moussa Ndoye ñi ngi foofu lii di njabootuk Cheikh Mamadul Bachir waa kër sëriñ Moussa Ndoye moom ay jëwriñ lañ ca kër ga ndax kóllëre gi doxoon diggante sëriñ Moussa Ndoye ak Cheikh Mamadul Bachir loolu itam njabootuk Cheikh Mamadul sàmm nañ ko moo xam sëriñ Moustapha Bachiru mi njëkk a wuutu sëriñ Bachiru ba ci sëriñ Muntaqa Mbàkke ibnu Cheikh Mamadul Bachir mi fi nekk ak yeneen njabooti mu dul Bachir yi ndax xam nañ na sëriñ Moussa Ndoye ku dëggal la woon ci seen ginnaaw waajur séq naag ñoom lu baree bari ñu man cee ràññee kii di sëriñ Ahmadu Ndumbe Xabbaan ndax kat moom la ko ko baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim boolee loon ba tax na itim sëriñ Ahmadu Ndumbe nekkoon na jëwriñam ci yoon wi diggantee mag maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru moom diggante bu yaatu la ndax kat bi mu jaayantee ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim ci Mbàkke Kajoor sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim moo waxoon maam na mu dalal ko ba tax na itim moom maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru soo demee ci kaggug sëriñ Musaa Ndooy daa mu bare bari man gis naa ay xasiday ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim yoo xam ne ni ci loxob maam ceerno ibrahima faati mbàkke moo ko bind te mi ngi ci kàgguy sëriñ musaa ndóoy yeneen ak yeneen yu mu séq ak maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru maam cheikh anta mbàkke borom dërëm ak ngërëm moom itam ko amoon kóllëre la ak sëriñ musaa ndóoy ba tax na ñëw na ay yooni yoon ci dëkk boobu di jokkul tàbbi ngir seet si jëmu jooju sëriñ musaa ndóoy ma sàmba mbàkke nekkoon caatum maam mor sali mbàkke moom itam ko amoon kóllëre la ak sëriñ musaa ndax soxna si si sëriñ Moussa Ndoye dëkkoo woon ñu koy wax soxna Guèye te meññ kii di sëriñ Cheikh soxna mi nekkoon ñetteelu xalifa sëriñ Moussa Ndoye ginnaaw ba fi sëriñ Moussa Ndoye bàyyi ko moom lañ jébbaloon ma Massamba Mbacke ba tax na maam soxna géey mii am naa kiri Cheikh Massamba Mbacke ak njaboot ñu ràññee ci soxna maam Issa Mbacke di caatum Cheikh Massamba Mbacke Cheikh Issa Diène tim bokkoon ci jàmbaar yi toppoon ku baax ki sëriñ Touba Cheikhul Khadim tim wala réew sëriñ Moussa Ndoye la woon ba tax na itam ñëw na ci dëkk boobu di jokkul tàbbi ay yoon yoon seet si sëriñ Moussa Ndoye sëriñ Mor Kumba Kan itam ko amoon ko lëre ak sëriñ Moussa ndax kat bi di Touba Seexul Xadim ci loxoy sëriñ Moor Kumba Kan la njëkk a jaar ginnaaw bi nag la sëriñ Moor Kumba Kan bindub lettre jox ko ku baax ki tu ba Seexul Xadim ngir sëriñ Moussa Ndoye doog faa dem kon ñoom ñaar amoon nañ ak kóllëre gu yaatoo yaatu ndax moo ko dalal ci yoonu murit wi loola itam sëriñ Moussa Ndoye fàttewu ko woon ba tax na siin lay kan ak dëkk bi di jokkul tàbbi sorewuñ loola itam ñaari njaboot yi sàmm nañ ko ba tax na ak kóllëre dox na seen diggante sëriñ Moor Fangom bokkoon itam ci jàmbaar yi toppoon ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xadim moog sëriñ Moussa Ndoye moom amoon nañu ak kóllëre gu yaatoo yaatu ba tax na bi ñuy dem gànnaar ci atum 1904 ñoom ñaar ñoo àndoon ca yoon wa wala itam bokk na itam ci ñi sëriñ Moussa Ndoye àndaloon ca yoon wa ngir ñu dem seeti kañu yaakaar di ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ci gànnaar sëriñ moor war xa kanitim bokkoon ci jàmbar yi toppoon ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim wala réew sëriñ musaa ndooy la woon ndax kat juróomi wàlli wi kajoor yiñ daa wax ñoom juróom ñooñu la muy sëriñ moor kumba kan sëriñ moor war xa kan sëriñ moor faa ngom sëriñ musaa ndooy ak kii di sëriñ buubu mbay njandaate kon juróomi wàlli wu yii lañ daa wax ne ñoom ñooy juróomi wàlli wi kajoor yi ànd ak ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim sëriñ la Moussa Ndoye la woon ndax kat ñoo bokk itam ëttub ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim te itam ñoo bokkoon Kajoor sëriñ Buubu Mbay Njanaate moom itam wólla réew sëriñ Moussa Ndoye la woon ba tax na soo demee ci kaggug sëriñ Moussa Ndoye daa fa fekk mbindum sëriñ Buubu Mbay Njanaate ndax man mii di Abdourahmane gis naa mbindum sëriñ Buubu Mbay Njanaate ci kaggug sëriñ Moussa Ndoye kon kóllëre gi moom lu wéroon la sëriñ ma rubba géey bokkoon ci jàmbaar yi toppoon ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul ndax bokkoon nañ wala diggaloonte woon nañ ay tool ci dëkk boobu di daaru gay ngir ñu ànd nag di liggéeyal ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ci mag ñi njabootu ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim cheikh mamadul basiir moom moo nekkoon ak cërëm ba tax na ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim moo leen boole woon ak njabootam ba nëga ni ñu ngi ci waa daarul mi nam ndax fa lañ mu mu dul mustapha mbàkke mi njëkk a wuutu xaadim rasuul sëriñ musaa ndooy itam ku ko jàppale woon la am na ñenn sant ndooy ci cheikh yi Moustapha Ndoye moo ko jébbaloon kii di Cheikh Mamadou Moustapha Mbàkke ku amoon kóllëre la ak njabootu ku baax ki Sëriñ Seexul Xadiim ku amoon kóllëre itim la ak mag ñim a ëttub ku baax ki Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim sëñ Moussa Ndoye nag ci loolu la sax boole ko nag nekk nag ci daara yi mu gor di liggéey di it ku baax ki Sëriñ Seexul Xadiim ba nim génnee àdduna ci atum ñu mën a ràññee ca daara ya daara ju nekkoon ci dëkk bii di Ndofane jokkul tab bi di dëkk boo xam ni fa la ay waajuram cosaanoo ci dëkk boobu sax lañ ko denc di jokkul tab bi amoon na daara itam ci dëkk bu ñuy wax kër sega mi ngi ci wetu dëkk bii di cinquante amoon na daara itam ci dëkk bu tudd bégal ci daara yi nag la nekkoon di liggéey lépp loo xam ni tukkee na ci daara yi mu it ko ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim ginnaaw ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim mu jël léppam nag jëbbal Seex Mamadul Mustapha Mbàkke waaye nag féeteeg Seex Mamadul Basiir Mbàkke ndax kan moom sëriñ Musaa Ndooy sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim moo ko boole woon ak jëmm jooju di Seex Mamadul Bachir Mbacke moo tax njabootu sëriñ Moussa Ndoye waa Daarul Minnan lañu yaakaar mu nekk nag ci dëkk boobu di jokkul tàbbi ba nim génnee àdduna ci atum 1945 ci feebar bu ko tëral sëriñ Moussa Ndoye soo demee ci marché bii ko sëriñ Jibril Lo way ma ngi ko cay tagg ak di ko ca kañ di ñu waxaale nag kan mooy sëriñ Moussa Ndoye ndax tur woowu di Moussa ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim moo ko tuddee ci ginnaaw bu mu jaayanteeg moom ci Mbàkke Kajoor waaye ñu ngi ko tudde woon benn xaritu waajuram bu ñu doon wax Musaa Jaxeer ak Bachir ak digganteem ak Cheikh Issa Diène ak itim bi mu jotee ngërëm ci bëccëgu ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weer wi di weeru rajab la jot nag lii di ngërëmam ginnaaw bu mu waxee ay kiimaan ci feeñu jamonoog Cheikh Mamadou Fadal Mbàkke ginnaaw bu seex Cheikh Mamadou Fadal Mbàkke feeñee jamono ba noppi nag la ko ko baax ki Sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim jox ngërëmam ci Daaru Salaam ba tey ci marché boobu ko Sëriñ Jibril loo defal moom Sëriñ Musaa Ndooy mi ñuy xamal nag ginnaaw bu mu delluwaatee ci dëkk boobu di jokkul tàbbi mooy dëkkub cosaanu waajuram jafe demoon fekk si ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim loolu lépp daal la sëriñ Jibril Lo tënk nag ci am marsiya jagleel ko góor yàlla googu nag di sëriñ Moussa Ndoye ñu teewlu lenn nag luñ leen jukkil ca marsiya ba Moussa ga sax du woon turam ca baayam la ko waral naa la ko wax ca laa jëm juddoom ga ak màggam ga ak demam nga ca Bàmba naa la wax nga xam dundam nga baayam ba njoogu ndooy la woon yow maa bi lébu la woon dëkk fa jokkul tabbi ngisa gi gaa ko génne woon dëkkam ba moom njoogu ak Alsunu Jeng ñu ànd te fekk booba dafa diis ba xand ngir ceddo yaa leen génne woon fa dëkk ba ndax dañ ne woon ko fa fanaan doon jàmba mu génn jëm fa xëy mbayaar ak soxnaam dal fa xarit ba moo ko tee nekkub jaam xarit ba moom séeréer la mooy musa jaxeer kam tudde woon doomam ja yàlla mooy kabiir musa jaxeer turam la bamba leeral moo tax ma jóg ngir woy ko bul ma soofal ba mu demee ca bàmba la ko laaj turam mu nu ko man musa jaxeer mooy lanu xam yeeg la mbër ma tiim ca suuf billaahi bind ca kaw muusa kalaamullaahi boole ko ak maam Cerno Ibra Faati ngir mu daloo ko moo di gayndeg baati maam no moo ko dalaloon fa néeg ba soxla ya fàtteloo ko woon yaaram ba am na fa bis ca néeg ba toog te génnul ba ba laaj ko no mbër ma juumul maam Cerno gaaw daw seet ko daa di yéemu ngir la mu gis buur yàlla mooy xakiimu ngir ni gisul fa néeg ba ak jeexintal yu dul yu julli ku ma weddi laajal keroog la wax Seex Bamba naa ko kile ndax jinne la am malaaka loolu la wax la Seexi Bamba waxal loo bëgg lii jar naa xam mu naa ko àdduna lu dul na su dee ëllëg nga jox ma lépp wér na bambaak naa ko loola laa yaakaaroon boole ko ak mandumbe kii xam naw yoon keroog la ànd ak waaja nag tool ya saxoo dëggal ndigal di daw safaani sëriñ Moussa Ndoye am na bis nag ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim yónni woon am naar ci dëkk boobu di jokkul taat bi boole ko yeneeni mag naar bi mi ngi tuddoon Moustapha Ould Mouhamed Moustapha Ould Mouhamed moomu nekkoon naarub gànnaar ginnaaw bu mu ñëwee ci jokkul taat bi ci ndigalul ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim ngir mu gane ci sëriñ Moussa Ndoye naar boobu bi mu ñibbee bind na ak xasida jagleel ko kii di sëriñ Moussa Ndoye wala bind na ay way jagleel ko kii di sëriñ Moussa ma ngay wax nag ca biir wayya képp koo xam ne nii ñëw na seet si kii mu gis di sëriñ Moussa Ndoye jafe-jafe yoo man di am ak soxla soo man di am soo ñëwee soo gisee moom dana ko faj te lam lay jox da ciy ànd ak xol bu ubbeeku nag ndax dala koy yéene boole koog nag ñu mën di ñëw ak nuñ mën di mel ak par parloo moom du am ca lam leen di jox ma ngay wax ne nag a neexoon mbooleem mbindee fi nag mel ak neexoon nag mbindeef yépp nag mel na sëriñ Moussa Ndoye tabe ak nangoo joxe nit ñi daal war nañoo roy jëmm jooju di sëriñ Moussa Ndoye sëriñ Moussa Ndoye nag la muy joxe ak lu valeur ba kawe kawe kawe soo ñëwee ci moom noonu la la koy joxe ñu teew lu tag yi ko naaru gànnaar bi defoon ci ginnaw bu ko ku baax ki sëriñ Tubaa Seexul Xaddiim ne damal gane ji kii di sëriñ Moussa Ndoye ci jokkul tab bi te naar bi tudd Moustapha Uldu Muhammad ñu lu ko man amma Muusa li amrin daaka qad naala maa xusni xulqin wa juudin walhuda maala layta al unaasu jamian misluhu karaman wa laytahum مثله قولا وأفعالا إن الكرام إذا ما المدح حل بهم جادوا بما عندهم لو كان مثقالا من فضة أو خميس رائق حسن يقيك أثقالها غدا وزلزالا loolu la naaru gànnaar bi waxoon moom ngir seede ko Serigne Moussa Ndoye nag mi ngi génn àdduna bisub altene fukki fan ak ñaar ci weer wi di weeru baraxlu ci atum 1364 ci gàddaay gi altene fukki fan ak ñaar ci weer wi di weeru baraxlu ci atum ci gàddaay gi dëppoo muy lundi 23 juillet juillet 1945 lundi 23 juillet 1945 ci xilaaf ak cheikh mamadul faadal mbàkke ndax boobu kat mu dul faadal mbàkke day doog a toog nag lii di xalifa général des mourides ci kilifteefu ki nu yaakaar di cheikh mu mu dul cheikh mamadul bachir mbàkke moo joge ci dëkk bu sell bii di Touba dem itam ci dëkk boobu di jokkul tàbbi cheikh mamadul bachir moo ko taxawu moo ko jullee jébbal ko boroomam ci dëkk boobu di jokkul tàbbi ndax kat sëriñ Moussa lool bokk na ci lim doon sàkku ci mbàkke ginnaaw bu mu fi bàyyikoo na ko cheikh mamadul bachir mbàkke taxawu ay xalifaam nag ñu la tëdde moom sëriñ Moussa Ndoye ci atum ba atum 1986 comme tudde woon ku baax ki sëriñ Touba seexul xaddiim di ku ñuy wax bàyyi sëriñ Ndoye moo ko wuutu nekk nag xalifaam bu njëkk ñaareelu xalifa sëriñ Moussa Ndoye ci atum 1986 la ba atum 1990 muy ku ñuy wax sëriñ Cheikh Soda Ndoye bu Pire ñetteelu xalifa sëriñ Moussa Ndoye ci atum 1990 la ba 2013 muy ku ñuy wax sëriñ Serigne Cheikh Soxna Ndoye Serigne Cheikh Soxna ndooy mi moo xalifa sëriñ Moussa Ndoye ci atum 1990 ba 2013 lii nag di doomi sëriñ Moussa Ndoye yu góor yi jeex tàkk ca kaw suuf sët yi nag tàmbalee wuutu seen maam ja sët bi njëkk a maamam ci atum 2013 ba nëgëni la fi nekk muy ku ñuy wax sëriñ Xaadim Ndoye ibnu sëriñ Cheikh Sooda Ndoye sëriñ Xaadim Ndoye mi sax moo nekk directeur étude ci lycée Limaamu Laay mooy sët bi njëkk wuutu maamam di sëriñ Moussa Ndoye ñu koy ñaanal moom sëriñ Xaadim Ndoye mi suñ boroom guddal aw fanam te wéral ay cëram te yàggal ko nag ci toogaayu sëriñ Moussa ak mbooleem nag ay rakkam ak ñi mu séqal sëriñ Moussa Ndoye sëriñ Moussa nag am na bis ñu koy fàttaliku muy li ñu tudde ak màggal daanañ ko màggal nag ci fukki fan ak ñaar ci weeru baraxlu boobu di bis bi mu génnoon àdduna màggal nañ ko ay ati ati at ci bis boobu di bisu fukki fan ak ñaar ci weer wii di weeru baraxlu màggal googu nag liñ tudde turandooy sëriñ Moussa Ndoye yi ñoom ñoo ko daa amal bi ñu demee ba ci atum 2007 ci at moom nag la njaboor gi dem ci sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacke di ko wax ne dañoo bëgg taxawal sëriñ Moussa Ndoye ab mu leen di wax ñaata fan ngeen ko jàpp ci weeru olof ñu koy wax ne bisub fukki fan ak ñaar ci weeru baraxlu di bis bi sëriñ Moussa Ndoye génnoon àdduna sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacke mu leen wax ne sëriñ Moussa Ndoye amul baneen bis bu bokkut ak booboo waay ginnaaw bi nag la njaboot gi ne teg mu ne leen tee ngeen seet bis bi nga xam ne nii ci la ñëwoon ci ku baax ki sëriñ Touba Cheikhul Khadim muy fukki fan ñaar ci weer wi di weeru rajab ci atum nag ba 2014 lii di turandooy sëriñ Moussa Ndoye yi ak sëti sëriñ Moussa yi doon nañ ko màggal rek ci date boobu waaye nag ci màggal di jokkul taab bi fas yéene koo def la yemoon 2014 ba nëgëne nag ci la njaboot gi jàpp nag def ko màggalug sëriñ Moussa Ndoye ñaanal jàmbaari ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xaddim di sëriñ Moussa Ndoye ka sëriñ Touba Seexul Xaddim boole woon ak Cheikh Mamadul Basiir Mbàkke yàlla na suñ boroom yokk ay leeram te ñu ci barkeem te guddal fanu njabootam gim fi bàyyi ak nuñ ci mën a lii di jafe-jafe réew mi tam